alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amma baad mbokki jullit yi noonu ragal sunu boroom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem gannaaw loolu mbokki jullit yi ñu xam ne ak digg doomu ak digg doomu ci mbirum àdduna ak àllaaxira nekk na di loo xam ne bokk na ci yi tax mbirum jullit yi léeg-léeg mu jaxasoo wala mu lëj walla jëm kanam ga ca war di des wala seen objectif yu mag yi nga xam ne moom la leen lislaam tegal ci wàllu àdduna ak ci wàllu àllaaxira muy xaw a jafe ci ñoom lu bari ci jullit yi dañoo yor aw déggiin woo xam ne déggiinu njuumte la ci mbirum àdduna nga gis ñuy ànd ak mbégte lool buñ jéggee kuy waxtaan ci wàllu bàyyi àdduna ak lépp lu aju ci àdduna lu jafe la nag mën a fexe ba li jaadu ci àdduna nga fàggu ko am ko te yam ca mu bañ laa yàqal sa àllaaxira wala nga yittewoo àllaaxira ba noppi jox àdduna cër bi nga xam ne moom la yeyoo équilibre boobu lu xaw a jafe la muy tawaazun bi war a am ci mbirum àdduna ak àllaaxira te nag gépp gàttañlu ci jox àdduna àqam la muy jur mooy tardé gépp ëppal itam ci jox ko lam yeyoo la muy jur mooy tardé fële nu jëm kon nag am na lu dox ci diggante bi loo xam ne mooy la jaaru nit ñi nag ñetti xaaj lañ boo leen xoolee ci bunt boobu bunt bu njëkk bi mooy am na ñoo xam ne dañoo nuur ci àdduna ba jeex ca takk amuñu soxla ci leneen booy wax lu jëmul lu jëmul ci àdduna sax ak alal ak nuñ koy amee ku am alal la nga koy doyee booy wax ak moom ci leneen lu dul loola sax la ngay wax daanaka du ko dégg mën nay dégg ngay wax nii rek waaye fekk na la nekk ci boppam moom mooy ay calcul nag ay chiffres ak nangam bu ko defee lu ci war a am ak nan lay def ba du perte nangam ak loola lay xalaatal guddi ak bëccëg bu nelawee loola lay géntal ñooñu nag ñooy ñi yées ci nit ñi koo xam ne àdduna kese nga jox sa bopp ñooñu la alquran ak sunna di waxal ci bépp aaya boo xam ne yaa ngi koy jàng gis mi ŋàññi àdduna ak la ca aju ñooñu lañ bëgg ñu gën koo dégg moo tax borom bi tabaraka wa taala bokk na ci aaya yooyu nga xam ne ci ñooñu la jëm wala ci ñoom la tàmbalee bokk muy fi borom bi waxe ne wama alxayaatu dunya illa laibun wa lahu muy wax ne dunduk àdduna gi porek la borom bi tabaraka wa taala nee na wadrib lahum masala alxayaati addunia kama in anzalnaahu min alsamaai faxtalata bihi nabaatu al ard fa asbaxa hashiman tadruuhu riyaax wa kaana allahu ala kulli cheyin muqtadira nee na jox leen misaal ci dunduk àdduna jii nim mel mi ngi mel ne ab taw boo xam ne dafa wàcc gàncax gi daal di sax ñax mi naat taw bi dem mu daal di wëlbatiku soppiku ñax mu wow koŋ bu ëllëgee mu sooy ngelaw li ñëw ëf ko mu dem suufus kese des fa nee na àdduna noonu rek la mel kon ki aj ab xolam ci àdduna bu xamee ne àdduna nii la mel dana wàññi wékku gi xol bi wékku ci àdduna ak naf-naf ji nga xam ne yaakaar na ne lu mu perte ci àdduna rek deseetul dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax mu wax ci xadis bu wér ne àdduna day lu ñu rëbb la te li fa nekk léppit lu ñu rëbb la ba mu des tudd yàlla ak lu aju ci tudd yàlla maanaam jaamu yàlla kon àdduna gu àndut ak jaamu yàlla dara baaxu ca xaaj bu njëkk bi kon mooy boobu nga xam ne léppam mooy àdduna xaajub ñaareel bi mooy ñi nga xam ne dañoo won gannaaw àdduna ne soxlawuñu fi dara ñoom daal seeni mbir moom mbirum àllaaxira la loolu wuute na ak li taxoon yàlla indi nit ñi fii ci kaw suuf te ñaari ñi koy jéemit dañuy sonal seen bopp waaye dañ koy tële ndax nit ki moom faaw mu lekk faaw mu naan am na yu doomu aadama yi soxla yoo xam ne lum ci defut lu ne wala lum ci amut am na lum koy jural loo xam ne musiba lay doon ci moom loo xam ne diine ja tax mu ne moo tax mu bàyyi àdduna mën naa dem ba tax diine joojee sax far mu ñàkk ko kon xaaj boobu moom la sun borom tabaraka wa taala di waxal walla ñi moo jiitu ci ñi muy waxal bi muy wax ne fa ida faragta soo noppee ci jaamu yàlla gi fan sob demal nga sonni nag liggéey wa ila rabbika fargab te nga def sa xemmemteef mu jëm ci sa borom ñoom la sun borom di waxal ne wabtaqi fi ma aataaka allahu daar al axira li la yàlla jox ci kàttan ak ci man-man ak ci xam-xam ak ci ay pexe na nga ci fàggu alaxira wala tansa nasibaka min ad-dunya waaye bul fàtte sa ci àdduna de kon na nga fàggu àllaaxira mu nekk ci sa xol ak ci sa jëf waaye nag bul fàtte àdduna itam ñoom la borom bi waxal na fa ida qudiyat salaatu su fekkee ni jullig ajjuma ga jeex na fantashiru fi l ardi tasaaroo leen ci suufi suuf si nag wabtaxu min fadli wabtaxu min fadlillahi te ngeen dem sàkku ji xéewalu sunu borom tabaraka wa taala mooy dem leen liggéey kon ñaari xaaj yooyu benn bu ci nekk ci njuumte la nekk ki jël léppam jox ko àdduna ak ki wax ne dafa bëgg a won gannaaw àdduna kenn ku nekk ci nun mu ngi fàttaliku ñetti nit ñi ñëwoon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajte ak jaamu yàllaam biñ leen ko waxee ñu ne ah, lool de bariwut waaye nag kooku ab yonent la boo xam ne yàlla jéggal na ko li jiitu woon ak li mujj kon bu ko neexee jaamu yàlla mën naa néew ñoom ñett kenn ku ci nekk ne man fas na maa yéene def lii kenn ki ne man damaa fas yéene di julli te duutuma nelaw ki ci des ne damaa bëgg di woor te duutuma dog ki ci des ne dama bëgg a bañ a takk soxna faf bàyyi noonu rek yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko yëgee daf leen a ŋàññi xupp leen ne leen bu dee ragal yàlla maa leen ko gën a ragal te damay julli di nelaw di woor di dog di denc ay soxna teg ci ne fa man raxiba an sunnati fa laysa minni ku am leneen loo bëgg lu bokkul ak sama sunna maanaam nii may doxale man ku am leneen lu la gën a ñor sooy boo nga dem ca te xam ne bokk bokkatoo ci man mu doon kàddu yoo xam ne kàddu yu tàng tàng la loola daal di yem foofu ñetteel ba ñetteelu kuréel bi ci doomu aadama yi ñooñu mooy ahlul wasatiya mooy ñu ci digg bi mooy ñi nga xam ne ñaari kër yooyu muy kërug àdduna ak kërug àllaaxira gu ci ne dañ koo jox ak xam ñooñu nag ñooy xiyaaru naas mooy ñi gën ci jullit yi ndax ñoom yoon woow yi ñu sóobu ci la àdduna mën a baaxe ci la àllaaxira itam mën a baaxe ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen aajo ci àdduna ba mën koo baaxal ba mën a dund waaye lu ca des ñu def ko ci yoonu yàlla mu mën a baaxal seen ëllëg kon ñooñu mooy ñi nga xam ne àdduna jariñ na leen kon déggeenu lislaam wi nga xam ne mooy wi wér mooy àdduna ab moyen la ab jaarukaay la boo xam ne nit baaxal ëllëgam dund beeg wërsëg weeg fa ngay tëdd ak looy lekk ak looy war yooyu yépp ci loolu lay jóge gaa te loolu doomu aadama mënu koo ñàkk waaye nag jàppal ne yooyu yépp boo ci jaaree ngir nag baaxal ëllëg moo tax mu jóg kon départ boobu moom la jullit bi am moo tax dañuy wax ne fàggulu lew fàggulu lew mëni suta jaamu yàlla daanaka te defoo ko jaamu yàlla gu baax te lépp loo xam ne li la war jaamu yàlla daa war ku nekk li la war am na loo xam ne boo ko deful doo ko mën a def kon loolee moom itam da lay war loolu mooy ma la yatibul waajibu illa bihi fa huwa waajib loo xam ne li la war munta complété munta mat te defoo loola xamal ne loola daal nay war ci yow ndax nga mën a def li la war moo tax boroom xam-xam bu mag ñu koy wax almawardi daf ne képp koo xam ne e, mbiram dafa baax maanaam melokaanam ci wàllu jaamu yàlla dafa jàpp ne lu baax la waaye àddunaam dara baaxu ci ndax joxu ko benn itte maanaam amul dara ba noppi jàppe na boppam jaamukatu yàlla nee na kooku fa muy mujj mooy diineem ja baaxoon sax day yàqu diineem ja baaxoon day yàqu ndax ñàkk ci boppam am na loo xam ne bu tegoo ci gor mën na koo dugal ci loo xam ne sax du jikkoom mën na koo dugal ci loo xam ne du woon jikkoom démb waaye ñàkk moo ko ko teg lool moo tax jom ak liggéey ak farlu di yëngatu doon loo xam ne lu baax la ci ci nit ki mu ne su fekkee ne dafa addu diineem dafa baax te àddunaam dara doxut nee na yàquk àdduna googu mën naa royaatal ba ñëw yàq diineem ndax kat fam mën a tibbe ba mën a baaxal diineem nee na mooy àdduna maanaam su fekkoon ne ab oto buy daw la dañ naan mooy gasoil ba wala mooy essence ba su fekkee ne amatul essence amatul gasoil day taxaw su taxawee àdduna duutu baax diine duutu baax mu ne yëpp ki nga xam ne mbirum àddunaam dafa baax ba noppi mbirum addu mbirum diineem baaxut nee na kooku mbirum àdduna moomu sox du ci jariñu te du neex ci moom yëg-yëg bi mu ci war a am ak xel mu dal ma ak gëm yàlla ga loola du am ci moom moo tax mu ne nit ci boppam ngir mu mën a dund ak texe fii ci àdduna lu jiitu muy doon texe ak àllaaxira nee na ñaar yooyu dañuy daje ci moom dana góor góorlu ba amal ci àddunaam loo xam ne mën na ca taxawal ab dundam waaye mu góor góorgóorlu ci diineem ba mën caa sellal ab xolam ak i cëram ak i jaamu yàllaam ñaar yooyu suñu àndee mu doon ko jub loolu nag boo seetloo alquranul karim li ëpp ci ay aayaam yuy tudd àdduna ak àllaaxira ci lu mel noonu ci lay soññee bokk na ci ka muy wax ne huwa anshaakum min al ardi yàlla mooy ki leen bind ci suuf wastaamarakum fiiha mu sàkku ngeen dundal suuf si itam ci suuf lañ leen bind waaye dañoo bëgg ngeen dundal suuf si nu ngeen koy dundale bay ko meññat génn ci ngeen mën koo jariñoo waaye ngeen tabax fi ay bërëb yu ngeen mën a dëkk mën fee defar ay waruwaay ba ci lépp loo xam ne doomu aadama ngi koy defaroo di defar di ko jariñoo ci fu muy dëkk wala lu muy sol wala lu muy lekk kooku istimaar la boo xam ne sunu borom tabaraka moo ñu ko def al imam ibnu kathir bi muy fii firi waxi borom tabaraka wa taala rabbana atina fi dunya na xam nga ñaan googu mooy yàlla yàlla nag lu may fii ci àdduna la gën a baax may ñu ëllëg ca àllaaxira tam la gën a baax te musal ñu ci mbugal ñaan gu am solo la al imaam ibnu kasir bi mu koy firi dafa ne day alxasana muy lu baax lool yi ñuy wax bu dee fii ci àdduna day nee na mooy lépp loo xam ne doomu aadama da koo aajowoo ci ak dundam muy jàmm walla kër gu yaatu wala wërsëg gu yaatu wala xam-xam bu am njariñ walla jëf ju baax wala sax warwaay bu baax wala sax aw tur wu rafet fa nit ña maanaam baax ba nit ña xam ne ku baax la nee na yii mooy lu rafet fii ci àdduna li nga xam ne boo ne rabbana atina fi dunya xasanatan loolu ngay ñaan waaye nee na xasana it ci àllaaxira la ca gën a kawe mooy tàbbi ajjana nee na tàbbi ajjana nag am na yeneen yu ko jiitu muy mucc ci tiitaange ju rëy ji nga xam ne ca doomu aadama yi daje buñ leen bëgg a atte ak yombal gañ koy yombalal xisaabam muy régler gañ koy régler kon am na yeneen yu jiitu yoo xam ne fegal lay njàqareeg ay tiit yu mel noonu nga dugg àjjana yooyu yépp ci xasana jooju ci la bokk kon ñaan boobu di ko faral di wax baax na rabbana atina fi dunya xasanatan na fil axirati xasanatan wa qina azaban naar mu doon loo xam ne it daf lay won tawazun bi nga xam ne moom la ñuy waxtaan muy équilibre bi nga xam ne moom la jullit bi war a def ci ñaar yépp mu soxla leen soxla adduna ju baax waaye soxna àllaaxira yoo xam ne ju baax la kon bul amati mukk aw déggiin woo xam ne da nga naan ginnaaw dama bëgg alaxira àdduna dama koy won gannaaw wala nga ne damay song àdduna ba damay fàtte alaxira ñaar yooyu boo ci def bu nekk wala iyaasu billah yaa ngi ci njuumte moo tax ay alquran booy xool yépp comme ni ma ko waxee léegi dangay gis ne àdduna ak alaxira moom la sun borom tabaraka wa taala di boole mu ngi wax ne inna la nansuru rusulana walladina amanu fi alxayaati dunya wa yawma yaqumu al yàlla nee na danaa dimbali sama yonent ak ñi ma gëm ci fan nee na fil xayaati kon seen jëmmal fii ci àdduna lay tàmbalee wa yowma yaqumu al ashhaad ak yowma al qiyaama muy ba ëllëgee waxaat ne wa laqad katabna fi zabuuri min ba'di dikri anna al yarisuha ibaadiya saalixuun nee na bind naa ca sama téere yee jàlloon muy zabuur ak ya ko ya ca tegoog alquranul karim mi nga xam ne moo ci mujj yàlla nee na man maa bind ci téere yooyu ne suuf si suuf si ña koy mujje mooy sama jaam yu baax ñi maanaam ñi nekk ci ak njub di jaamu yàlla kon adduna ak li ci biiram ñoom la koy jox borom bi waxaat ne naxnu awliyaukum fi lxayaati dunia wa fi l yàlla nee na moom ak malaayikaam yu tedd yooyu di bégal jullit bi ñooy ay seeni péete fii ci àdduna ku yàlla féeteeg yow ci àdduna sa sa mbir baax nee na itam ëllëg itam mooy doon seen péete yàlla na yàlla boole ci ñooñu nga xam ne sunu borom seen péete lay doon. nit ñu baax ñi jaamu yàlla it bokk na ci digg yi leen sunu borom tabaraka wa taala wax mu ne fa ataahum allahu sawaab addunya wa xusnu sawaab al axira ci àdduna ab yool ëllëg jot mu fayaat leen. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am xadis bu mu wax boo xam ne ñu bari ñuy bàyyi àdduna. ci la ñuy dellu mu di addunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir adduna daal nee na ab kaso la ci jullit waaye ajjana la ci ab yéefar noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi waxe adduna ab kaso la ci ab jullit waaye ajjana la ci yéefar ñi déggul xadis boobu moom dañ naa ginnaaw ab kaso la say boo ñu nangu ko rek bàyyi adduna li ci biiram rek jublu julleeg woor ak jaamu yàlla ak lépp lu mel loolu mooy déggiin wu ñaaw wi li yonente bi alayhi salaatu wasalaam jublu foofu moo di ne jullit bi su xamee li ko yàlla di xaare ëllëg ci àjjana ak i xéewal ak la fa nekk su ko xamoon doonte moomoom àdduna ak li ci biiram dana xam ne ci kaso la nekk fu muy génne kaso ba mooy su génnee àdduna dugg àjjana yéefar bi ne ci suuf ci kaw àdduna moom ci àjjana la nekk ndax su xamoon la koy xaar ëllëg ci xeeti mbugal li muy dund fii même bu metti woon sax doonte ak dund gu metti lay dund fii ci àdduna na xam ne loolu àjjana la ci moom ndax la koy xaar ëllëg alxaafis ibnu xajar benn bis kenn ku ne xam ne alxaafis ibnu xajar ci ay jamono moo nekkoon qaadil qudaat ci misra maanaam ña doon atte ñépp moo leen jiite woon ci wàllu àtte doon koo xam ne it kon fonctionnaire la boo xam ne jekku na addunaam bu baax su masaan génn ab cortège lay àndal boo xam ne jamono ci jamonoom ay watiiri fas lañuy def fas yi ñu takkal leen ay yëf yu rafet ànd ak yëngatu yoo xam ne bu génnee ñu xam ne kilifaa génn benn bis mu génn ànd ak mawkib bi mu àndal muy cortège bi dem ba romb benn yahut muy benn juif boo xam ne mi ngi gas di liggéey bu doon ci suñ jamono ji da nga naan ci ñiy gas tuyoo yi nga xam ne ci la ndox yu bon yi di jaar ak yooyu ca lay liggéey ma nga fees dell ak suuf taqrib bi ko ibnu xajar rombee ak mbooloom mu bari ak taar baak yañ sol mu ne leen taxaw leen ñu taxaw ibnu xajar ne leen déglu leen ko mu ne di yéen seen yonent bi dafa wax ne addunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir seen yonent bi daf ne adduna ab kaso la ci jullit waaye àjjana la ci yéefar yow mii di ibnu xajar ak man mii nga xam ne nekkuma ci lislaam tey nii nga mel ak yu taar yeeg alal ji la wër yu mel noonu ak yu metti yi ma nekk loolu nu mu mënee nekk noo mën a nekk ci kaso man ma nekk ci àjjana alxaafis ibnu xajar ne ko su ma saxee ci lii ma nekk ba faatu su ma xamoon li muy xaar danaa xam ne ci kaso laa nekk fi mu ne waaye yow mii soo saxee ci lii nga nekk ba faatuwaale ko soo xamoon li lay xaar da nga xam ne ci àjjana nga nekk fi mu nekk nii mu daal di wax ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ci loolu ci la waajoo ju duggee ci lislaam ndax xam na ne li mu nekk su mettee su fekkee am na leneen lu koy xaarat ci ëllëg lu gën a metti kon woowu yoon moom ko yóbbu dal di cay génn kon mbokki jullit yi su fekkee xam na lii li jaadu ne jullit bi ngir mu dox ci àdduna def li nga xam ne moo taxoon ñu indi ko fi mooy day boole jaamu yàlla boole ko ak faggu àdduna su xoolee dana gis ne jullit yi tey ci kaw suuf situation bi ñuy dund nekkul bu naturel ci ñoom maanaam loolu du seen situation waruñoo mel noonu jullit yi suñ déggee seen diine te dund ko tey waruñu woon a doon al toppe joo xam ne dañuy topp ci ñeneen ñu dul ñoom nga xam ne luñ soxla ci àdduna ñoo ñaa koy liggéey ñoom ñu féetewoo di jënd rek loolu du na du nekkul naturel ci jullit yi ci li ñu war a loolu moo tax jaadu na ci jullit yi ca nam gën a kawe ci niveau yi ñu del ci xoolaat bu baax a baax euh, formation yi ak njàng mi nga xam ne ñu ngi koy jàngal ndaw yi xool méthode yi nga xam ne moom la ñuy teg di ko jàngal ndaw ñi war leen génne ñu doon ay nit ñoo xam ne dañuy boole ñaar yépp xaraña seen àdduna ba mën koo liggéeyal nam gën a kawe waaye xaraña seen diine ba mën a jaamu seen boroom nit ku mel noonu fu ñuy jaar ba amal ko day loolu doon na tey ab liggéey boo xam ne liggéey bu réy la jaadu na ñu dem ba déggéen yu ñaaw yi nga xam ne noonu lañ déggee njàng ci suñu réew yi jàpp ne njàng mooy nit nga jàngal ko ba mu dégg aw làkk moo xam làkk wu jóge soww la wala làkk wu jóge penku jàpp ku ci gën a xarañ làkk woo moo gën a war a moos moo gën a war a mën a jëmale am réew kanam loolu njuumte la xam-xam mooy jëmale am réew kanam waaye du ay làkk yu ñuy jàng di ko rafetal kon xam-xam yi nga xam ne réew yi ca ñuy tegu ngir di jëm kanam ñi xam ne lii réew mu avancé la réew mu mën a doyloo li mu am la yooyu mooy yoo xam ne war naa tasaaroo ñu boole ko xam-xamu diine boo xam ne mooy former doomu aadama ji ba génne ko mu doon koo xam ne ku tekki dara lay doon sun borom tabaraka wa taala moo wax ne qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayibaati min ar risq mu ne ana kan moo sañ a araamal taar bi nga xam ne moom la yàlla indi génne ko génneel ko jaamam ñi mu doon ay wërsëg yu teey kan moo ko sañ araamal ci kenn mu ne qul hiya lilladina amano mu ne ñi gëm yàlla ñoo moom adduna fi lxayaati dunia xaalisatan yowma alqiyaama nee na fii ci àdduna ñoom ñoo ko war a moom ëllëg itam ñoom ñoo ko war a moom kon jullit bi ku kawe itte la war a doon dafa war a doon koo xam ne niveau ba muy nekk mu gën a kawe yépp ndax itteem doonul ittee fii rek daa bëgg a jagal fi bëgg a jagal fële loolu moo tax warta am jot warta yàq dara ci waxtoom war naa xool itam bu baax a baax a baax li nga xam ne aajo woon na ko xëy na sunu ko sunu borom tabaraka wa taala maye du ñàkk ci eh, beneen xutba danañ junj yenn ci yi nga xam ne jaadu na ci wàllu njàng ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax a baax ci yan yoon lañ war a mën a jaar ba suñu réew yi jëm kanam allahuma aqsim lana min xashiyatika ma taxawlu bihi baynana wa bayna maasiyatik wa min taacatika ma tuballiguna bihi jannatak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 wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in